conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko di jaay ñu xëy fekk fa Mamadou Diop Decroix nee na àdduna du neex a neex wala mu naqare naqare ba muy jóg ne dafay ànd ak Macky Sall di liggéey loolee fukki xelam xalaatu ko te Macky Sall xam na ko ndax bu ñu ko waxee Mamadou Diop Decroix la mu say teg mooy grand bi bàyyi leen ko foofu moom Decroix ci yéenekaay maanaam mënoon nañu maa woo ndax sama téléphone a kaay gi di mi nga xam ne def na ko jur nañu bari ñoo xam ne guuxal ko am mer te opposition interne soo a kaay ne moo jiite woon Dakar dem dikk dikk na ci yéen a kaay la sa maire ba futu ca Podor la doon amal am daje moom maître Moussa Diop nee na su xamoon ne su jàppale Macky Sall liggéey bi liggéey bi tollu fii Macky Sall yàkkal ko Idrissa Seck ak ñeneen du jàppale le Sall la yéen a kaay nee wax ji kay mooy maître Moussa Diop mer na ba maara détaillé mere na Macky Sall yàq na ko musiba ak mbelengaan te nee na candidat la ngir jël mairie bi Podor yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Boubacar Camara mi nga xam ne ci coalition jot na bu Ousmane Sonko la nekkoon génn na ci boobale kuréel la yéen a kaay gi nee na moom Boubacar Camara moomee sax gise na ak Macky Sall Ousmane Sonko na gise bu boobee Boubacar Camara yëgal nañu ko waaye nag coalition jot la coalition la boo xamante ni kenn ku nekk am nga sañ-sañ dugg si waaye tamit am nga sañ-sañ génn ci li Boubacar Camara def amul lenn loo xam ne maanaam ma ngi ci loolee kàddu yi Ousmane Sonko la ci yéenekaay gi de La Tribune nee na Macky mi nga xam ne mu recevoir Aboubacar Camara mi bokkoon ci coalition jot na bu Ousmane Sonko tax na coalition boobee daal di explosé yéenekaay gi La Sa nee na Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoo nekk ca diiwaanu Dagana mer nañu ba maara détaali ci Omar Sarr mi ñu dugal ci gouvernement bi ak Makhtar Cissé mi nga xam ne moom la ñu ci génnee yéenekaay gi de L'Observateur nee na gars yi ñoo fi nekk waaye nag Macky Sall am na xam ne moom la teg schéma mooy fexe ba parti socialiste ba AFP du tas waaye nag yokku dooleel ñi nga xam ne ñooy wa benn bokk yaakaar ci sud bi ca Casamance ngir ñu mën a jàmmarloo ak Ousmane Sonko yéen a kaay gi di la quotidien ci xalima ak Madiambal Diagne nee na Macky Sall li mu rawee gars yi ci wàllum politique moo bëri yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu groupe scolaire Dior jamono ji ma ngi giita ngaas ak waajuru xale yi nga xam ne seeni doom ñoo fay jànge ndax groupe scolaire Dior boobee dafa bëgg waajuru xale yi fay ñetti weer yi nga xam ne xale yi jàngi wuñu woon ca jamonoy coronavirus jë maanaam weeru avril weeru mai weeru juin ñetti yooyu yooyu amul benn xale boo xamante ni jàngi na ko groupe scolaire bi nag dafa bëgg ñetti weer yooyu parents d'élèves yi fay ko moo tax parents d'élèves yi ñoom dañoo lànk kandaare nee na du ñu ko def tey du ñu ko def ëllëg ba pare di sàkku état bu Sénégal daal di si intervenir ñoom sax jàpp na ne loolee racket la ay caaxaan la te sax ñoom na ñu si yokku ne école privée yi état bu Sénégal génn na ay milliards jàppale leen ko yéen a kaay gii de ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall muy wax ci wàllum pétrole ak gaz bu Sénégal ak loo xóor ak yi nga xamante ni daat nañu ko si def moom Thierno noonu Alassane Sall mi fi nekkoon ay jamono ministre bi ñu dénk wàllum énergie daat nay taqal Abdoulaye Wade taqal na Macky Sall taqal Karim Wade taqal Aly Ngouille Ndiaye Aliou Sall nee na corruption gergeeg lu njur gi nga xam ne def nañ ko ci pétrole ak gaz bu Sénégal jéggi na dayoo garaaw na loola yéen a kaay gii di Libération wax na ci Barça ak Barsàq gi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg man la ci réew mi néewaa na ci biir réewum Sénégal ci gox boo ne amuñu seen doom boo xam ne ñàkk na bakkanam ci biir ndox mi yéen kaay gii di réew mi ko di cee xëy yóbbuñu ca réewum Amérique nee na Joe Biden jamono ji gagné na yi journal bi di laas nee na juutal nañ Donald Trump waaye nag dafa lànk bañ a dem yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak laas ak Vox Populi xëy ci marche bu bi nga xam ne julli di nekk ci Ndakaaru ak ci biir réew mi doon ko def di ñaawlu caricature bi nga xam ne ñoo ngi koy def Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ak Emmanuel Macron mi nga xam ne nee na caricature ñoom duñu ko mos a yi wane nañu seen Sénégal la jugee jël roppalaan dem ba Paris la France dafa nekk di wax ne man je suis di jàppale waa Charlie te nag ñun ñoo ngi nekk place de l'Obélisque di ko woon mu nekk ci biir réew mi munta ñëw loole lu ñuy naqarlu la loole lu ñuy ñaawlu la yéen a kaay gi di Sud Quotidien ak Vox Populi mu ñu xamal la ñu en tout cas li am ba des bëri woon na ay jullit yoo xam ne ñoo ngi woon ci mbedd mi yéen a kaay gi di Stade xëy wax ci Sénégal Guinée gi nga xam ne bëri na ay joueurs yoo xam ne du ñu sa football ci mel ni Idrissa Gana Gueye Baldé ak dañoo forfait yéen a kaay di sunu làmb